su activisme doon àll kon ma ni Guy Marius Sagna ab kàkkatar la bu làmboo ay jikkoy gunóor mu di nit koo xam ni ay intérêt képp a ko ñor nekkoon activiste ambulant doon yaakaar ci ndaw yu amul liggéey ngir fayal ko location ma rax ca dolli daal di koy defal ket ba mu am woto. xeetu activisme boobu nga xam ni Guy Marius Sagna doon na ko def ab porox ndollu képp la woon ngir mu dugg ci langu politique gi daan dajale liggéeykat yi nga xam ni daal nañ leen dàq seen bërëbu liggéeyukaay loolee lépp la ko waraloon moo dajale këru taskatu xibaar yi ngir gën a mën a fës. këru taskatu xibaar yooyu nga xam ni daal nañ bokk ci li ko def li mu doon tey jilee 7TV daal na ci dugal loxoom daan couvrir bépp activité boo xam ni Fra France dégage daan na ko amala seen njiit di Guy Marius Sagna na ko invité ci bépp émission fii ci 7TV ak jamono jooju nga xam ni kenn xamu ko mu daan ñëw ngir saraxu ay temps na nit kookee jamono jii moo nekk di jéem a xaajale presse bi naan ñi ñoo ñu baax ñi ñi ñoo ñu bon ñi. ñu baax ñi ci dégginu Guy Marius mooy presse bi nga xam ni dafa ànd ak ñoom ci seenu gis-gis di salfaañe éthique ak déontologie bi nga xam ni ànd nag pratique journalisme presse bu bon bi ci déggnu Guy Marius mooy presse bi nga xam ni du far benn yoon rax ci dolli dafay amal traitement bu jaar yoon bu bépp xibaar su dee ni looloy presse bu bon bi 7TV la mu taamu mooy féete foofe askan wi képp tax koo jóg Euh, campagne diabolisation bi nga xam ni ñu ngi koy amal am na ndëgëni ab diir mu ngi tukkee ci langue politique gi ci waay politique yoo xam ni jàpp nañ ni ko ànd ak ñoom baaxoo euh, ñooñee amatuñu limite benn yoon ñu ngi ci presse bi ñu ngi ci diine ji ñu ngi ci tarixa yi ñu ngi ci xeet yi kenn mënatul mucc ci ñoom ñu bëgg a jàmm ji nga xam ni am na ci diggante askanu Sénégal mu di benn te kenn mënu koo xar ñaar ak jàmm jooje nga xam ni Guy Marius ak ñu mel ni ñoom bëgg nañ ko nërmeel presse bi dina wëy di gën a dëgëral taxawaayam ngir jëmal démocratie fii ci Sénégal di bañ a déglu wax yu mel ni yu tukkee ci Guy Marius Sagna jàpp assemblée nationale def ko arène national di fa jibal ay xalaat yoo xam ni jëmalul réew mi lu dul ci ak guuta